alhamdulillahi alkarimi silmilan alastifaad bifurud wa sunan sakartuhu lianna qad saafani liwatani bihi nafa ma anfani min asheytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi waxda wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya baada ñu ngi sant yàlla sunu boroom di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Cheikh euh, Cheikhana Al Khadim di ñëwaat ak yéen ngir wéyal waxtaan yi nga xam ne baaxoon nañ di ko def ci altine bu ne ak ajuma ngir bëgg bokk taalibe bi yëpp mën cee jariñ kon ñu nekk ci téere bi nga xam ne sëriñ Mame Lamine moo ko def mu tudd Nubda Mubaaraka ñu tolloon ci fi muy waxee ci. Euh, màndarga yi nga xam ne mooy tegtale ne nit ki bëgg na yonent bi sallallahu alayhi te mbokk ci màndarga ya bëgg gaañu baax ñi nga xam ne ñoo jiite yoon yoon yi nga xam ne moom la ñuy tudd yoonu tasawuf nga xam ne ñu ànd ñoom ca yoon woowee dañ leen teg ci yàlla leen wan mm, yàlla bëgg ak la mu bañ ak jago ya nga xam ne yàlla jox leen ko ñoom ñoo ñooy ak ñu leen topp ci loolu la doon wax mu mel ne euh, wax na ne képp koo xam ne nii dafa askanoo ci ñooñee donte sax ab jaam la seenu jaam la sax des ko war a bëggaale des ko war a fonk des ko war a taral ndax jaam des na ko taral ngir euh, ka nga xam ne mooy ab sangam sangam ngay xool ci moom moo tax mu andi béyit bii lii saadatun mu ne man dama am ay sang yoo xam ne bëgg ma bëgg ma leen bëgg tax na seeni tànk seeni ndëggu mi ngi ci kaw euh, jëy maanaam mm, dañuy jël seen seen daal euh, ñoo féete kaw waaw ndax bu leen soobee ñu jël seeni tànk teg ma ko teg ko ci sama kaw bopp mu ne nag donte sax bokkuma ci ñoom waaye teewut rek bëgg gi ma leen bëgg tax na dama cee am teraanga dama cee am daraja dama cee am ak màggaay ngir bëgg gi ma leen bëgg ñoo ma kawe ñoo ma fuuf ba tax dañuy bu leen soobee ñu jël seeni tànk teg ma ko waaye teewut bëgg gi ma leen bëgg nag man dama cee amaale teraanga dama cee amaale tedd nga dama ci amaale daraja kon la ñoom kilifa yi yoon yi tasawuf yooyu ñu leen di beral di leen di leen tudd ñu amu ràññeeku ak donte sax euh, ngëneel li boroom xam-xam yi am mënees mënees naa wax ne ngëneel loolu lañu am ñoom waaw waaw waaye nag la gën a waral ñoom ñu ràññiku ba euh, ñu leen di beral leen tudd ngëneel ngëneel maanaam euh, dafa am dafa dafa am leneen leneen ndollin loo xam ne yàlla da leen ko jagleen ñoom waaw yàlla leen ko takkaayal takkaayal ñoom te mooy ay leer ak ay secret yuñ mën a teg bët ak yoo xam ne mu ne su ko teg bët te loolu nag yàlla moo koy def mooy jël nit ñi kenn ku ne mu yëkkati la euh, wàcce kii wala mu gën a yëkkati kii ci euh, moroomam kon bu ñu delloo ci téere yi nga xam ne nit yàlla yi euh, dañ cay leerale ci mbirum tasawuf dañuy gis ne te ñoom lañuy wax lépp dañ koy sukkandiku ci alxuraan sukkandiku ci hadis nga xam ne lu leer lay doon dañuy gis ne Euh, loolu mënut a ñàkk maanaam ñoom ñu baax ñooñu day am day dañoo day day day am lu leen yàlla di jagleel loo xam ne nii euh, maanaam keneen ku bokkut ñoom doo ko am waaw moo tax mu ne am na ñu bari ci euh, boroom xam-xam yi dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo bind yaxal ne dees war wekk màggal. Mm, ñi nga xam ne ay kilifa lañu euh, di gindi nit ñi di leen teg ci yoonu yàlla des leen war a topp des leen a war a wekk seeni taalibe sax seeni taalibe yi nga xam ne ñoom ñoo leen yar ñoo leen tërbiyee sax dañ leen a war a fonk dañ leen a war a euh, màggal waaw ñu wax ne euh, bëgg gi nga leen di bëgg ak siyaare gi nga leen di siyaare ak liggéey liggéeyal gi nga leen di liggéeyal ak teggin yi ngay doxale sa diggante ñoom teggin yi ngay am ci ñoom ak euh, defal gi nga leen defal njëkk leen defal lu baax euh, loolu des ci amee ci ngëneel loo xam ne nii boo doon jaamu yàlla di topp yàlla wala ngay jihaad ak sa bakkan moom mënoo ko caa amee maanaam li ngay li ngay amee ci ngëneel ci liggéey ba nga leen di liggéeyal ak fonk nga leen di fonk ak wegg nga leen di wegg ak yu mel ak siyaare nga leen di siyaare la nga cay amee ci ngëneel mënoo ko am ci jaamu yàlla euh, mënoo koo am ci jihaad jihaad maanaam ak sa bakkan ak façon jihaad bu mën a doon mu ne nag loolu boo seetloo euh, gox boo dem rek ak jamono bu mën a doon rek da fa euh, da nga fa gis loolu maanaam da nga fa gis ñoo xam ne nii dañoo ànd ak nit yàlla yooyu di leen lëggéeyal di leen tërba yiw yàlla la jox leen loo xam ne nii ñu ah, loo xam ne nii euh, mënuñu ko woon a am bu fekkoon ne dañoo beru nee waaw yàlla jox leen ci eh, ay xéewal jox leen ci ak jege ko ak ak ak ay leer yoo xam ne buñ won nee ñoom kese duñ ko mën a am te sax euh, euh, def yi ngay def loolu maanaam liggéeyal ga nga leen di liggéeyal ñoom nit ñu baax ñooñee ak teggi ni ngay am sa diggante ñoom ak lu baax li nga leen defal day mel na loolu soo ko defee ak topp gu ngay topp seen ndigal day mel ne mooy topp ndigalul yàlla rek mooy topp ndigalul yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax bu ñu delloo ci alxuraan mm, dañuy gis ne suñu borom wax na ne yaa ayyuhal lazina amanu atiu allah wa atiu rasul wa ulil amri ñi nga xam ne gëm ngeen topp leen yàlla topp leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ñi nga xamee ne nag ñooy ulul amr ba tey na leen na ngeen leen topp mu ne euh, borom tafsir roxul bayaan bi muy firi aaya bi dafa wax ne li ñu jublu ci ulul amr te dëgg-dëgg mooy kilifa yi nga xam ne dañoo xam yàlla ba noppi di tegtale yàlla nga xam ne dañuy digle lu baax dañuy tere lu bon waaw nga xam ne lañuy ñuy def lépp ci yàlla lay dellu ci yàlla lañuy ñuy sukkandiku ci yàlla lañuy nekk waaw mu ne euh, lool loolu loolu la jublu ca dëgg-dëgg ci wulul amr mu ne euh, jëlee nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne màggal leen sëriñ si waaw ndax màggal gi ngi leen di màggal day màndargal màggal yàlla ba tey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne na ngeen teral boroom xam-xam yi ndax ñoom ñooy ñi dondu yonent yi képp ku leen teral teral nga yàlla teral nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tey yonent bi sallallahu alayhi wax na ne képp koo xam ne waggar nga weg nga boroom xam-xam dafa mel ne euh, boroom bi tabaraka wa taala moom nga weg moom nga waggar yonent bi sallallahu wax na ba tey ne xool waliyu waliyu yàlla maanaam nga xool ko loolu ak jaamu yàlla la waaw xool gi nga koy xool nag jaamu yàlla la ba tey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne euh, yow mi nga xamee ne yaay liggéeyal nit yàlla yi yaa ngi ci sécurité maanaam yaa ngi ci kaaraange yàlla li fekk yaa ngi sax di liggéeyal nit ku yàlla kooku nga xam ne ma ngi ca yàlla na nga xam ne yaa ngi am sécurité yaa ngi am kaaraange yàlla ba tey yonent bi sallallahu wax na ne liggéeyal wàllu liggéeyal nit ku yàlla moo gën jaamu yàlla ak juróom-benn fukki at hmm. am na ku ñuy wax Zuruq Euh, day nettali te la muy nettali ma ngi ko jëlee ca ab sëriñam te mooy alxadrami radiyallahu anhu moo xam ne dafa am kenn ci mag ñi ku gisoon koo xam ne dafa gént gis yonent bi sallallahu alayhi wa mu daal di wax yonent bi ne ko yaa rasulullah ah ñun de fekk wuñ sa jamono moo tax nag ñu lay laaj lan moo gën ci jëf yi waaw waaw fekk wuñ sa jamono gis la moo tax nag ma lay laaj lan lan moo gën ci jëf yi nee na yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko li gën ci jëf yi mooy nga taxaw am na sax ci beneen riwaay beneen nettali boo xam mooy julusuka mooy sa toog mooy nga toog ci kanamu nitug yàlla wala yàlla waaw ndiir soo xam ne day day day day day tolloog comme mm, boo toogoon di ràtt ab gàtt boo toogoon di eh, ràtt ab gàtt boo toogoon di rat ab euh, boo toogoon di rat gàtt diggante soosu euh, ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu mm, ni muy ni muy ni muy ñàkk a yàgge xam nga diggante soosu maanaam du yàgg di bi nga toog rek maanaam di rat ab gàtt waaw euh, jotaay boobu Euh, nga am ko nga toog ko ci kanamu nitug yàlla nee na euh, jëf jooju moo mooy jëf ji gën ci jëf yi bi mu laajee yonent bi sallallahu alayhi loolu ko yonent bi sallallahu alayhi tontu nee na mu moom moom mu daal mu daal koy laajaan ne ko waaw kooku nitug yàlla kooku bu nekkee di dund moo tax ñuy wax wala boog bu fàddoo maanaam bu fi nekkatul yonent bi ne ko moo xam mi ngi dund nga jàkkaarloo mu toog wala boog nekkatu fi waaw nga dem ci barabam. siyaara ko toog def noonu wala yu mel noonu mu ne am na ku ñuy wax euh, al arabi ad-Darqawi euh, wax na ne euh, amut dara loo xam ne mën naa jariñ ab xol comme dëddu àddina nim mënee jariñ ab xol dëddu àddina nim lay mën a jariñ sa xol amul dara lu mel ni moom ba tey toog ci kanamu nitu yàlla nim lay li mu lay mën a jural ci njariñ amul dara lu mel ni moom mu ne am na ku ñuy wax euh, sayid muhammad bun nasir radiallahu anhu wax na ne bokk na ci ngënee li liggéeyal nitu yàlla nga xam ne euh, liggéeyal boobu liggéeyal bi ngay liggéeyal nitu yàlla day mel ne mooy meññetu bëgg leen maanaam euh, boo nee bëgg nga nitu yàlla boo nee damay màggal nitu yàlla boo nee damay waggal nitu yàlla lay la koy màndargaal la koy firndeel lay meññeen ba Ah, mooy liggéeyal ko waaw boo leen bëggee da leen di liggéeyal mu ne nag euh, bokk na ci bokk na ci ngëneelu liggéey boobu mooy da ngay cee mën a amee ay xam-xam da cee mën a amee ay teggin da cee mën a àgg ci yàlla da cee mën a dundale sunna su yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa amoon koo xam ne moo ko daan liggéeyal nga xam ne xaadim la woon da ko daan liggéeyal te yàlla wax na ci alxuraan laqad kaana lakum fi rasulillahi iswatun xasana waaw da ngeen a war di roy ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne am na ci mag ñi ko wax ne képp koo xamee ne nii ak wilaayatoom feeñ na xam nañ ne kii boroomub cër la wares kooke wares na ko liggéeyal mune am na keneen ku bokkut ak mm, kii wax fii ba tey wax ne ne day mel ne la nga bëgg liggéey ba nga cay liggéey waaw maanaam la nga bëgg wala ka nga xam ne danga koo bëgg liggéeyal ga nga koy liggéeyal day mel ne loolu mooy seel bi nga xam ne ca ngay ba am la nga bëgg waaw waxee ne nga bëgg yàlla ba tax nga bëgg nituk yàlla ba tax ngay liggéeyal nituk yàlla waaw nga jàpp ne liggéeyal ba koy liggéeyal mooy liggéeyal yàlla di nee na liggéey boobee mooy seel bi nga xam ne moo lay àggale ci da nga bëgg mooy la nga bëgg lépp day mel ne liggéey ba ca ngay mën a jaare ba am ko mu ne am na keneen ba tey koo xam ne képp koo xam ne nii la liggéeyloo nañu ko mun na ngoo liggéey di liggéey kooku dañ koy daal di taqdimal mooy dañ koy daal di jiital waaye day daal raw ak maasam mu ne euh, borom téere bi ñuy wax sulwatul anfas wax na ne na nga xam ne bokk na ci li gën a màgg ci xéewali suñ borom yi nga xam ne daf ñu ko xéewale euh, def gi mu def ay awliyaaw maanaam ay nitam ñu am ak euh, def gi mu def seeni armeel seeni bàmmeel ñu mën koo gis ñu mën a xam ne nitu yàlla kii bërëb ci bërëb bi lañ ko denc ndax nee na loolu euh, li ci nekk ci ay njariñ daal mënee su ko tënk mënee su ko takk mu ne bokk na ci njariñ yooyu suuf sañu nekk suuf sañu tëdd ñoom wala suuf sañu nekk di dund wala ñu mm, seen armeel nekk fa suuf su day am barke suuf soosu day am njariñ suuf soosu wërsëg dafay dafay dafay yomb dafay bari dafay nekk ndax euh, bu du doon nit yàlla yooyu kon asamaan si du taw waaw du asamaan si du sotti benn dox suuf si du génn benn gàncax waaw <coughs> euh, te it kon musiba balaa day daal di wàcc ci baa suuf ndax loolu xadis la yonent bi sallam moo ko wax Tabrani euh, ci moom lañ ko jële ci téeram boobu tudd Al-Awsat mu jële ko ci Anas moo wax ne euh, suuf si toujours ñeent fukki nit ñu ngi fi maanaa duñ duñ duñ duñ duñ ko duñ ko duñ duñ duñ fi ñàkk nekk benn yoon waaw mel ne xalilu euh, rahmaan waaw euh, nga xam ne ci ñeent fukki yooyu suñ bëggee mu taw ci la ñuy tawasul ci ñoom maanaam ci seen barke ak seen ngëneel ci la asamaan si di tawe waaw ndimbal lu ñu mën a amit ci ñoom mm, lañ koy sukkandiku ba yàlla mën ñoo dimbali mën nañoo defal tawfiq waaw am na beneen xadis boo xam ne ibnu xabbaan ba tey moo ko génne jële ko ca abi hurayra mu ne suuf si du manqué benn yoon fanweeri góor fanweeri nit yoo xam ne dañu mel ne ibrahim xalilu rahman waaw nga xam ne ku ku bëgg yàlla xettali la ah, ci ñoom ngay xettali ko ci ku bëgg yàlla defal la wërsëg ci ñoom nga koy jaare asamaan si balaa taw ci ñoom lay jaare maanaam suñu borom mm, ci ñoom daal lay yërëm nit ñi ba tax muy taw waaw ba tey am na beneen xadis boo xam ne tabraani moo ko génne moo wax ne al abdaalu fii ummati salaasun waaw al abdaal mooy ñi nga xam ne ku wàññi ko ci ñoom rek yàlla day remplaçaat keneen bërëb ba mu nekkoon mu ne ñooñu nag man nañu fanweeri nit waaw nga xam ne daanaka ma ne saa wax ne bu suuf si taxawee nii nit ñi di mën a euh, nekk ci seen activité di mën a am jàmm ah ci seen ndimbal ci seen barke la ko yàlla defee waaw bu asamaan si taw naka noonu ci seen barke seen ndimbal bu ñu amee jàmm bu amee ndimbal naka noonu waaw Euh, am na euh, bu buñ bu ñu xoolee am na ci am na ci am na am na daal euh, jëm xadis boobu am na ci ay façon yu bari yu ñu ko waxee yoo xam ne da caa roote da caa dikki mooy waxees na ko waxin bari daal yoo xam ne dañ koo solo mu jóge ci mu jóge ci bi sallallahu alayhi wa sallam ndax fii day wax ne bu du woon jaami yàlla yi nga xam ne saa bu ne ñu ngi julli duru ko ak xale yi nga xam ne dañuy nàmp ak ma yi nga xam ne dañuy for waaw kon bu dul woon ñooñu mu wax yàlla dana sotti ci nit ñi ci mbindeef yi balaa waaw kon dañuy gis ne eh, nit yàlla yooyu ñooy soppe yàlla ñooy ñu yàlla tànn ci mbindeef yi waaw ñooy ñi nga xam ne leeri yàlla ci ñoom lay feeñe day mel ne daal bu diine bu bu fekkoon ne am na ay am na ay wos am na ay maanaam ay am na ay fonda fondation day mel ne ñoom ñooy fondation diine ñooy fondation àddina ñooy ñi nga xam ne ñoo dond yonante yi kon fu ñu leen mën a xamee rek ak fu ñu mën a nekk ci àddina rek dees dees war a jébbalu ci ñoom dees war a tënku ci ñoom waaw aaru ci ñoom su ko defee nag lañu am la ñu dond ci yonent bi saa sama yow nga mën caa dond nga mën caa am ci kaw boo leen liggéeyalee tënku tënku ci ñoom su ko defee euh, noonu la demee mu mel ne euh, bu ñu seetloo xadis euh, yi nga xam ne wax na ci ñoom bari na lool gis nga fii mu ne humul qawmu la yasqa bihim jalisuhumu waaw ay nit lañ yoo xam ne daal ku toog ñoom euh, doo texe di mukk mooy euh, saada rek ngay am waaw képp koo xam ne nii jàkkaarloo nga ak ñoom jokk maa yaa ngi jokkalante ak ñoom féetewoo ak ñoom yàlla da lay daal di limaale ci ñoom da ngay daal di bokkaale ci ñoom su ko defee da ngay daal di euh, bëggee lu yàlla mooy yàlla da lay bëgg dalay lay daal di dugal àjjana bu ëllëgee waaw mu ne am na xadis yu bari yoo xam ne ñëw na ci ndax lu mel ne almaru maa man ahabba nit ki ki nga xam ne da nga ko bëgg da nga ko sopp su ëllëgee moom ngay àndal dugg fa mu dugg euh, am na ko jox abad ibnu samit xadis boobu nga xam ne ci moom lañ euh, moom moom maana euh, ki ñuy wax ahmad moo ko jële ci abad ibnu sabit moo wax ne yàlla nee na euh, ñi nga xam ne dañuy bëggante ci seen biir te sama jëmm rek a tax ñooñu day yayoo nañu sama bëgg mooy danaa leen danaa leen bëgg ñi nga xam ne dañuy jokkalante ci seen biir te sama jëmm rek a tax ñooñu yayoo nañu ma bëgg leen ñi nga xam ne dañuy laabirante ci seen biir te sama jëmm rek a tax ñooñu yayoo nañu ma bëgg leen ñi nga xam ne dañuy siyaarante ci seen biir te sama jëmm rek tax ñooñu yayoo nañu ma bëgg leen ñi nga xam ne dañuy joxlante maanaa euh, mu lay jox nga di ko jox ci seen biir te sama jëmm rek a tax ñooy yeyoo nañu ma bëgg leen mu ne ñooñu mu wax fii bu ëllëgee dañuy nekk ci kaw ay minbar yoo xam ne euh, day leer nag di euh, yéeme loolu ci nga xam ne ñëpp dañ leen di ñee yónnante yi sax dañ leen di ñee ak si siddiquna yi ak soo shuhada yi nga xam ne ñoom seen martaba kawe na waaye dañ leen di ñee ñoom ñii ndax dañuy dañuy nekk ci kaw ay minbar yoo xam ne ci ci ak leer lay e, doon mu ne ak xadiisu Buxaari yi boobu nga xam ne ci adab téere ñu al adab ak ibnu Xabbaan ci téere boobu ci saxiixam boobu ak Bayhaqi ci ashaab e, shuab ak ñeneen ñoo xam ne wax nañu jële ko ci Abi Hurayra mu e, wax lii ci xadis bi Yonent bi wax lii ci xadis bi dina wax ne nit ki bu fekkee dafa seeti mbokkam dem siyaare ko te yàlla rek tax yàlla da koy daal di wax na ko yow day li nga def am na solo kon nag euh, sa dox bi nga dox ñëw seet sa mbokk mi tubaarkàlla am na solo kon nag bay boo daal nga daal di jël sa euh, bërëb jël sa wàccukaay ci àjjana hmm. am na téere bi ñuy wax basul al munasaha ba tey zuruq wax na fa ne euh, danga xam ne lislaam ruuxam ruuxu lislaam mooy bëgg yàlla bëgg yonante bi sallallahu alayhi bëgg sallam bëgg yowmal xiyaamate mooy àllaaxira bëgg ñu baax ñi ñi xam ne ay jaami yàlla lañu doon ñu baax mhm. demee ni lislaam mu doon ruux mooy loolu kon li gën a am solo ci lislaam rek mooy bëgg yàlla bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa bëgg àllaaxira bëgg gaa ñu baax ñi ba tey euh, ibnu zakri wax na ne mu jële ko ci abdurahman saali bi mu jële ko ci tabraani mana ci al imaam tabraani moo wax ne dafa am ko faatu woon dafa am ko fa euh, maanaam benn doxandéem boo xam ne daal taxu taxu daal ñu miin ko waaw waaye mi ngi woon Makka mu faatu nag ba mu faatoo nee ne ñu génne ko daat koy euh, yóbbu fi ñuy wax baabul mu àllaat bañ demee ñu daal di toog ngir daal euh, waaj ngir jëm ko denc jëm ko suul waaye nee na waa ji jékki-jékki rek daal di toog ñu ne ko ah, lool lii lii lii lii moom nu mën a nekk yow yaa ngi faatu yow xanaa faatuwoo mu daal ne ah waaye damaa dama siwaat te li tax ma dellusiwaat àddina mooy dama leen a bëgg a bégal wax leen li nga xam ne e, mooy moo moo gën a am njariñ fii ci àllaaxira loolu mooy lan mooy bëgg ñu baax ñi bëgg gaa ñu baax ñi ak féetewoo ak ñoom waaw bi mu waxee loolu nee na daa di. delluwaat daal di melaat na meloon daal di melaat na eh, jëmm ju mhm. mu ne eh, Cheikh Abul Hasan al Yuusi am na dénkaane boo xam ne nii eh, daf ko defoon wax ne na ngeen di baril lu ngeen di bëgg ni ñu baax ñi ndax bëgg gaa ñu baax ñi dafa doon saafara képp koo defar xamal ne yaa ngi saafara sa bopp yaa ngi am daal saafara sa gën jële nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ba tey ne bu ëllëgee yowmal xiyaam nit ki dañ koy indi bu ko defee nag mu taxaw fi kanamu boroomam suñ boroom ne ko yow sama jaam bii ndax sama nit ki sama sama waliyu wii bam bam wootee ndax demoon nga wuyju ko ca wootem boobee a ah, bu fekkee dem nga wuyju ko de kon da bay boo kon nga xam ne rek may naa la ko kon maanaam bàyyee naa la ak moom daal moo la moom waaw mu ne cheikh abou talib al yi wax na ne bu fekkee bokkoo ci ñu baax ñit ah bëggal ñu baax ñi waaw ndax yàlla bu xoolee seen xol ñoom ñu baax ñooñu ah xañ na mu gis la fa waaw su ko defee bu la fa gisee dana la yéegal nga bokk ci ñoom waaw am na ci beneen riwaaya beneen nett li ba wax ne kon xaj na bu xoolee euh, seen xol dana ci gis saw su ko defee mu jéggal la mhm. mu ne bokk na ci li nga xam ne dañ koy euh, moomale di ko askanale ci al imam Shafii yi muy béet bii mu ne man daal ñu baax ñi bëgg naa leen xañ sax bokkuma ci ñoom bàyyi nag bëgg naa leen waaw te it maa ngi yaakaar maa ngi yaakaar a am ci ñoom ak xet li ko mën a Euh, suñ borom mu ram ma mu tinu ma daal waaw waaye képp koo xam ne nag sa marchandise mooy ay mooy yàlla kooku moom moom moom duñ def neen du ma la du ma la du ma bëgg ak doonte sax woo maagew ñoo bokk marchandise mu ñor lu tax ma bëgg la uhib uhibbu saalihina wa lastu minhum wa arju an anaala bihim shafaa wa akrahu man bi bi bidaatuhu almaasi walaw kunna sawaan fi lbidaa mu ne bokk na ci euh, lii gën a wane ne bëgg ñu baax ñi am na solo mooy boo leen gisee wala nga toog fi seen kanam rek euh, maanaam xol waaw maanaam gis leen wala toog fi seen kanam rek loolu day tax ab xol di sel day tax ay bakkaar di far day tax ab xol li mën a yees ci euh, bëgg yàlla ak day day day day taxit nga di leen gën a bëgg waaw nit nit ku yàlla fi ne loo ko bëgg bëgg boo boo boo ñëwee toog foofu toog fi kanam sëg mbëggeel ci moom day gën a yees day gën a yokk waaw kon daal ñoom dëgg-dëgg day mel ne ñooy texeek doomu aadama ci àddina ak euh, leen daal day mel ne nit ki bu ko defee na nga na nga na rafet njot ci ne am nga saadatu dari ni hmm. mu ne ci almaqsad wax na fa ne euh, euh, doomu aadama du gis nitug yàlla te fekk xaj na moom xamu ko maanaam nga gis nitug yàlla te yow xamoo ne kii nitug yàlla la waaye te da nga koo gis rek nee na boo defee boo ko gisee rek dont sax xamoo ko sax yàlla da lay jéggal ci gis nga ko gis yow mi ko gis waaw da lay jéggal jéggal sa ñaari waajur bu fekkee sa ñaari waajur gëg ay jullit lañu woon maanaam gëmoon nañu yàlla waaw yàlla da lay jéggal jéggalaale leen ñoom sa ñaari waajur jéggal juróom ñaar maanaam juróom ñaar fukk ñoo xam ne dañoo bokk ci sa kër mu ne loolu nag mooy ki nga xam ne gis na nitu yàlla te na moom xamu ko waaye naka mu nag ak ki nga xam ne moom gis na ko ba noppi xam ko kooku moom rawatina sax mu nekk ca moom di niitu ca moom di tànk ca moom mu di ko wax mu di ko déet kooku la ci ne ci njëriñ di taw sax kenn xamul nu mu toll. mu ne nag yàlla nag mooy eh, seet lu ko sob mooy doxali lu ko sob ci kenn ku nekk rek ak lam la cëralee ak lam la jox ak lam la tawfee ak lam la xajal waaw ñii ah, teel na leen a yee ci loolu ñu ñu ñu ñu ñu teel ah, xam loolu ba di ko def waaw kenn ku nekk rek ak na la yàlla ak na la yàlla ak na la yàlla eh, ak la nga xam ne la la yàlla loolu la la yàlla teel a xiir su ko defee maanaam nga nekk ca mu ne eh, li Cheikh Abil Abbas eh, Ahmad At-Tijaani radiyallahu anhu wax na Euh, euh, dañ ko dañ ko dañ ko dafa wax ne euh, fekk dafa dafa am dafa am maanaam dafa dafa dafa am benn kilifaam bu mu doon laaj ne ko lan mooy li gën naafile moo gën wala def ay zikr moo gën wala bokk toog ak nit ñu baax ñi maanaam sëriñ su baax si moo gën mu ne ko toog ak sëriñ si moo gën ndax loolu moom loo ca def ci jëmmi jotaay boobu maanaam loo ca def lu mu tudd rek lu mu tudd rek maanaam loolee yàlla du ko delloo day daal di nekk jëf ju rëy ju am solo fa suñ borom waaw mu daal na ko sax toog fi kanamu nitigu yàlla wala yu yàlla moo gën àddina ak li si biir téere bi ñuy wax Tuhfatul Ikhwan wax nañu fa ne eh, nitigu yàlla ki maanaam ki xam yàlla waaw safurla téere bi ñuy wax Tuhfatul Ikhwan eh, am na ku ñuy wax xaasim Euh, waaw bu ñu bu ñu bu ñu demee ci téere téere bi ñoo tafatul tafatul ixwaan wax nañu fa ne euh, nitu yàlla kii tudd xaasim xaasim ibnu raxun dafa mel ne euh, dafa am xaal bu ko mës a dikkal laal waaw mu daal di wax ne benn xool bi ngay xool benn xool bi ma bi nga xam ne moom laay xool man sama kilifa gii hmm, di alwasni moo gën jaamu yàlla ak fanweeri waaw sama sama sama sama sama benn xool bi ma koy xool rek moo gën euh, sama jaamu yàlla ak fanweeri waaw te te nee na ba mu waxee loolu da ko waat da ko giñ waaw nga xam ne giñ na ko ñetti yoon waaw kon day mel ne euh, liñ la wax fii lépp ci gannaaw danga nga ciy gën a gise da nga ciy gën a déggane euh, nit yàlla yi boroomi yooni tasawuf yi am nañu nag ak jagleel gu leen yàlla jagleel waaw waaw ndax xadis euh, yi ñu indi fi yëpp ak liñ fi net lépp dañ ci dégg na kon bëgg leen ak di leen siyaare ak di leen liggéeyal ak di leen jariñ ak di leen ànd ak ñoom ca nañ nañ ko nañ la ko sante loolu ay njariñ kese moo ci nekk waaw mu mel ne buñ la ko tënkalaate buñ la ko tënkalaate maanaam buñ la ko waxaat buñ la ko baamtuwaa waatal fii euh, ci anam gu gàtt da ngay daal di gën a xam ne kon euh, liggéeyal leen ak euh, bëgg leen lu am solo la ndax wax na la ci ginnaaw ne la xool waliyu ak jaamu yàlla la hmm. nga gis li ñuy wax ne yonent bi sallallahu alayhi moo ko wax ne liggéeyal waliyu moo gën jaamu yàlla ak juróom-benn fukki at waaw ak ki nga xam ne gisoon na yonent bi ak lan la mu ko laaj nekkul ko lan moo gën ci jëf yi mën na ko toog gi ngay toog nag fi euh, kanamu nituk yàlla donte euh, bariwut comme euh, kuy rattu koo xam ne day ratt ab gàtt diggante si na muy gàtte loolu maanaam lu am solo la bokk na ci jëf gën a rëy bokk na ci jëf gën a màgg ak kooku nga xam ne faatu woon na ca màkk ak na mu dekkee ak ba mu dekkee la mu wax kon loolu lépp dañ nga ciy gën a déggee rek ne liggéeyal nit ku baax lu am solo la kon xam naa ñu yemal foofu waxtaan wi ndax euh, ñu ngi jéglu ndax euh, téere bi nga xam ne moom lañuy ñuy firi nii muy nubsa bi euh, léegi-léegi mbind bi mbind mbind bi dafa xaw a dese leer tuuti xam naa ñi ko doon bind ko sotti moo xaw a dese leer tuuti da ciy am ay diggante yoo xam ne day mel ne mbind mi dafa naaw am ci ay diggante yoo xam ne day mel ne wax ji dafa dafa ñëwut ba àgg waaw mooy waral léeg-léegi ñu ci euh, xaw a yéex tuuti ak yu mel noonu kon daal euh, foofu la yamale euh, lu jëm ci fonk ak bëgg nit yàlla yi kon incha allah beneen yoon ñu ñëw ci alfaslu rabia àggale ci li doon wax ci sëriñ bi ci digganteem ak julli juróom ak naa ak yi ak yu mel noonu yàlla nu yàlla defal dégg ak topp defal nu mu ak jariñu bi jaahi cheikhina alxadim wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. alhamdulillahi alkarimi silmilan ala sifaati bi furudin wa sunan sakartuhu liannu qad saxani liwatani bihi nafa ma anfani